asalaamaaleykum amee téléspectateurs yi ñu seetaan di am contentement ak mbégte saa su nekk rek di jàkkaarloog yéen ci seen bile émission yaa ngi ci biir ànd ci ak waa Feeling Dakar TV waaye tey nag ñu dalal ko xamante ne ni mën nañ ne gonek ndakaaru la xam nga gonek ndakaaru nag bañ ko dafa yombul mbay gonek ndakaaru lañ dalal nii de wala Thiès la ah ci xam dara ban la ci doon dëkk ñaari gaar kon daam naa la salaamaaleykum yéen waa Sénégal maa ngi nuyu ñëpp gonek ndakaaru du ma ko gonek Thiès la benn dëkk ñaari gaar mooy troisième gaar bi ñax ak salaam dañu benn ku weddi bi na garata ñànk tan fu mu làqatoo di jëw soos ko togg sori waa filim Dakar lañ jàkkaarloog ñoom foog ñu am filim kenn du kii man damaa sonn nee nee na du gone nee na du rek Thiès la ñu daal nekk fii nga xamante ne moom mooy studio Pilon di leen jaajëfal bu baax baax ci dalal gi nga xamante ne ni moom la ñu dalal waaye ñi nga xam ne ñoo lañ fi fekk Sabel ma sœur sister d'amour koy nuyu de tout cœur ay ca daam euh, ñu gis ni daam seen fii mi toll uh-huh. daa ne teg nga fi tànk dëj. teg naa fi tànk teg fi loxo teg fi bopp. lu waral lool la muy sa secret. boo tëddee sa bopp ngeen jege naa yow. waaw booy lekk looy lekkee. loxo booy dox looy doxee. tànk teg fi tànk teg fi loxo teg fi bopp. te kon tànk loxo nopp bakkan baat bët gémmeñ. ginnaaw biir mbagg bopp. ay ca kon neex na <laughs> lan mooy sa secret daal. <laughs> secret mooy doonub taalibe donc amul leneen doonub taalibe nangoo tarbiyu nit ñi nangoo toog nangook nekk nit ñi. Mm-hmm. boo xoolee tey jii fi réew mi toll comme ni nga ko waxee boo fi réyee da sonn ndax balaa xam ooy fa neex naaw jot te ku fekk karité mu tege ba nga jaawale ko bër di nga ko dàmpoo bu fekkee da ngaa mu lay metti boo gëstoo yem ci moom sa xel war naa dal boo amee taalibe lu ne mën nga koo doon ci réew mi. Mm-hmm. ñu ko fi doon ak taalibe lañ fi wane. Mm-hmm. boo fa wane leen du safe dëgg neexul. noonu dëgg neexul ngeen demoon ci benn événementiel boo xamante ni dafa amoon euh, fële ca bitim réew. dafa mel ni événement bi dafa mën ay tolof tolof yu ci nekkoon demoo fi woon jamono yi passé euh, may nuyu de passage waa lépp production xalifa sama frère Khalifa waaw ci événementiel bi ngeen demoon Allemagne amuloon tolof tolof tolof tolof ah! tolof day fekk nga doon jolof jolof dégg olof rek waaye Allemagne nga ma demoon day soirée moo fa dem man de neexoon na waaye nag dafa doonoon benn tournée boo xam ni daa mujj la àgg boo waxee loolu mën naa ko dégg man moom samay affaire du moom du am ay làkk-làkk. <laughs> waaw ayca bi moom amoon na tolof tolof waaye almaañ ja neexoon na man de ba may ñibbi si meru ma wax dëgg yàlla. almaañ ja li ko neexal daam. da ngaa daje da ngaa daje dafa am soirée. ñu ne déeta waaye nga dajee faak suñu président de la république Macky Sall. dégg naa mu may leen ay milliards yu bari daam jamono ji toll milliards yi nga def Macky Sall. lan yaar milliard. ay jamono ay a tuut wala lan <laughs> yow nii. <laughs> milliard su ma ko yor du ma ñuul kooku nii man man ni coca bee lii kenn du ko milliard. waaw <laughs> su ma ko yor kon doo ma invité maa ngi nelaw. Macky Sall fekkante nañ fa. moom sax ma ñu fekk Allemagne wax dëgg yàlla soirée ba Khalifa organisé woon doon soirée boo xam man yaakaaroon naa ni du ma fa am lenn ndax toog naa ba 4 heures du matin kenn woo gu ma ma ne soirée bi amul ndekete waa Allemagne 4 heures la génn man bañ may woo si di ma jël si pour man sax police ñëw. pour roñ ñu ñëw nekkoon foofu yëpp <laughs> ma gis xalifa di daw maanaam tey la ñuy dee ñu dugg ci soirée ba mu neex lool wax dëgg yàlla ña fa demoon laaj ko ndey gay demoon na nga laaj ko pend gis ma woon ci soirée ba soirée ba neex nga mu neex ëpp na ñu ne deetawaay le surlendemain président ñëw fa moom fa ñëwee ñu recevoir recevoir ñu président yàlla na sa jàmm yàgg <laughs> ah may na ko ay milliards de du man la ko may man du ay milliards sax ña fa nekk bëri nañu ñu am nañ ñu boole ndax boobu président yërëm nañ ndax boobu suñu kanam yi dugg naa sedd ba président na xaaral ma noonu dañ ci kanam yi noonu la demee nag mais du leneen. ay ci ni la demee sax su nekk ci seen uh, bile émission yaa ngi ci biir ànd ci ak waa Feeling Dakar TV waaye tamit nag ba tey rek di dalal gone gi nga xamante ne ne je dirais pas gone Thiès waaye gone àdduna la dama koy tooñ rek du gone Thiès de gone àdduna la Dame Sène gone àdduna wala gone Thiès sax. particulièrement à <laughs> kan daal Thiès ñooy jël pay. boo amul ma sonn sax. keneen soog cee toog maa la wax lu mel nii. Ah. kenn gis pay naan fu mu làqatu di jëw soos ko togg a sori. waaw man mënu maa muñ daam seen. man ah, de xam naa ne kenn mënu koy ree rek ngeen baal ma kii laa mënta muñ. ay ca ñu ñu toll foo xamante ne nii mooy fii nga xam ni fa leen suñu président de la république du Sénégal ñu koy nuyu de passage euh, monsieur Macky Sall. def la milliardaire yow. amiin yow mi yàlla na sa jàmm yàgg. ndax xam naa ne yéene nga ma ay milliards moom wax dëgg yàlla boo sañoon ma am ko alhamdulilah rabbil alamin amin ñun loolu dañ cee dal rek président indiwuñ ko de. je sais yeneen sénégalais ñoo ko indoon mu taxaw mu jóg ñëw Allemagne mu fekk ñu fa dañ cee rek tombé xam nga tombé war a ay gaaf te liy wërsëgu jàmm borom bi. Mhm. lañu fa am na ak su ñëw ñu cokk ñun liggéey ba dajeeg président. <laughs> liggéey ba dawit président mu jox ñu koy jox ku tëdd dina rek du ma ko def demoon te ne fee famille ba di la xaar nga koy jox ay bukk maa ko wax. kii ne nar te jox kenn dara. mooy jox milliards yi milliards yi loolu yàgg na yi ñaata weer la dafa comprimé ni def na ay deux mois trois mois di la boobu ak léegi. lu fiy des dëkk bu tëb bii kenn dafay mën a denc xaalis bu mu yàgg. milliards dafa jeex. waaye yow yow yow yow ami bàyyi ma waaye ami mu ne nii boo waxee ay milliards day day génn fii rek raykat ñu bari nii ci dëkk bi nga naan daan daan mi ak génn fi ñu rey ma fii bu ko waxati président daal ku nekk ñett téeméer fukk la la jox ca passé jël kalandoo mu jeex tàkk jeex na yi ñi nga xam ne ay tueur ngeen yoruma a ku mu tax nga ñëw ci kër ga fee boo fa ñëw ba fekk fa ay kanaar ak ay barbateur di nga xam ne kii yoru dara yoruma xar yoruma béy yoruma nag yoruma tos ñu ay kanaara ay ay copine ay uwaa yooyu xanaa nag. <laughs> mais yow yaa ngi wax lu am solo parce que ay kanaara ki copine na ko waa yooyu ngay wax dégg naa ñi am xaalis koy yor. Hmm, ñooñu ko seen kanaara gi kanaara gi. <laughs> kanaara lan la. kanaara dex. <laughs> ma reylu nit ñaa ngi rey nit ñaa ngi toll dafa dañoo yor te yoru mu dërëm. loolu dama lay wan loolu capital intérêt trois cent francs dans ma kii nag ku ma ci rey kii xam ne doo nit bu leen bëgg ma jox ko léegi ci film Dakar coow li jeex. nga non. wala ma nar a rey la nag Habib Kane. Habib man Habib Kane. lay la président des réseaux d'appui pour le développement de la région de Thiès. ma ngay dëkk ba. baaxkat la. bu baax. di jàppale ndaw ñi di jàppale mag ñi di jàppale góor di jàppale jigéen jàppale néew di doole di jàppale jàkka yeeg juma yeeg daara bawul dara barke Serigne Touba. macha allah ba pare doon koo xam taaliba Serigne Babacar mu xoola mu def fa nii nag. ca ba pare maanaam lépp li nga xam ne yëg na ko ci Thiès. amul mu xool loo ko yëgal loo ko yëgul sax day dikk. moom Ablaye Dieye kooku dafa simple te humble ko ñooñu lañ soxla ci suñum réew parce que artiste bu ci nekk ca gox ba nga nekk da bëgg gox ba nga nekk waa gox ba di la maanaam maanaam saturé na fa ba mu fa saturé yàgg na xam nga aar bu saturé ak liir bu prématuré ñooy am comprendre mhm. xam nga boo compliqué doo neex expliqué mhm. gis nga Thiès aar dafa yàgg saturé mhm. ndax ndaanaan yaa bari la fa ne ci ndaanaan xanaa xamoon ne bu Sénégal doon pat dentifrice Thiès moom mooy brosse à bi parce que da ko mën a laal rek génn gàllankoor. di xanaa il faut nga jël brosse. Thiès ay brosse bi ay ndaanaan nag ne fa. Mhm. mu bari lool nag. Mhm. te jii boo jëlee daanam seen ne moom rek ay ndaanaan Thiès yaa ngi réer ñu ma gën a garaaw nga fa toog nag di liggéey doon ñoo xam fu ñu génnee nga signé loolu cees la am. Mhm. te àdduna bi teg nañ seen bët. muy ci wàllu football wàllu. théâtre wàllu musique ak loo mën a sàcc sax sàcc yu ay yaa nga cees toog dama lay wax càppit nga amit deux doigts boo ñëwee cees yenn waaye da def ci poche coton bi ñun ko ñaanal jóg. dañ ma amusa dal. ca marché ba tëddee. ñun ma càppit la ma yoroon ma xam ne ñii c'est les ci sàcc ci lu ne ay mbay. nelaw sax ñooy jël pay. Mhm, nelaw nelaw meen. dañuy xandoor ba nga defe ni moteur lañ taal. fees rek loo fa wut mais ay liggéeykat la fa ne ku mel ni Ablaye Dieng borom siggi jot na kooku liggéeykat la te mu ngay dimbali Cees waaye moom it kenn du moom bu ñu ko amee ba tey gars yi dañuy siggi di dox kenn du fa xasalu kenn dugg ci kàmm suñu monsieur le maire Talla Sylla kooku moom naanaan la. mais est que tey yow possibilité bi nga am pour euh, xam ku ci mel ni Ablaye Dieye euh, fii nga am ouverture ci ki nga xam ne moom mooy seen monsieur le maire est que daal na yeneen artistes yi fa nekk. ñoom tëjaluñ seen bunt kenn kii di Ablaye mm-hmm. woo di leen jot Dakar ngay ñëw soxla fi nit doo doo ko jot. Mm-hmm. ñu wax voilà du loolu njëkk ba ñu seen téléphone message la je suis un peu pris te rappelle. Mm-hmm. je suis un moom ci Dakar waa la gën a jekk. <laughs> ñoom ñu tëj seen bunti nga ñoo ñu lay ko gardien yi naan la cest à rek boo moytu buñ la teqee mbaa ñu dóor la kontaaba dootoo fa jege mais Thiès léegi amatul yooyu de ña ko fa daan def ñoo ñoo ñëw tëxu si Dakar fii. Hmm. am na ay Thiès yoo xam ne ñoo gën a bon kaay lañ ñu bon <laughs> ba pare war a dimbali nit ñi daw jóge fa ñëw sanc Dakar toog fi toog fi. balaa maa dee ñu naan diw cees man leen diw dakaar la ñu bëgg Thiès ña nga Thiès toog ku leen hmm. soxla di leen gis. Hmm. Habib Kane boo ko soxlaa da nga koy gis. ab Abdoulaye Dieng boo ko soxlaa nga ko gis. Mm. Mouhamed Ndiaye nga soxla ko gis ko. Mm. Pape Doumbia nga soxla ko gis ko. Mm. ay waay sama papa ja góor gi Bakar Diagne dafa waa faatu fan yee. yàlla ko yàlla yërëm góor gi nga xam ni moo daan yóbbu mag ñi màkk moom ku mu gis ni yàlla nga mu jël la yóbbu yàlla na ko yàlla yërëm. alaamaaleykum dafay ko xolam. amiin amiin Ndiaye du tëj du tëjal kenn buntam. Mouhamed Ndiaye tëjalul kenn buntam man dinaa la xam benn affaire ami ko Thiès gi si bu bu ne woon jamet mook la ñu bon ñeeg ñu baax ñi di la joxoon për kër gi kër borom daa bon na ko saa neex dafa ñun du ma leen may courant ndax du ma leen ñaan ceeb mooy leen man yooyu laa lay def te Thiès Thiès am na ay complexe lañu moom am na Thiès waa yu complexe mooy ñi nga xam ni bëgg ñoo dëkk Thiès boo waxee ñu naan la non maa ngi woon temps wala ñu maa ngi woon soow man la soow wutal ñeex ba doon laax maa ngi woon soow maa ngi woon temps yooyu la ñuy jéem a gëmloo nit ñi te duñ ci lenn kat Thiès sa xol duñ fa dara moo tax dañuy ñëw organiser foofu Thiès pour mu réussir. c'est tout un problème waaw ñëw. waaw kenn doon bu ñëw. Mhm. ndax gëmuñu dëkk ba pare bu ñu jugee bëgg a indi waaye politique yi nit ñi ma politique. Eh, <laughs> di ko nëbbu. léegi moom laay fréquenté man même ba. <laughs> waaye kii. Ah, Cheikh Kanté ma njëkk a jokkoo may dawal di. Cheikh Kanté mel na. dama dox ba sonn mu yërëm ma sama tànk yi xar. ndeysaan. Cheikh xool sama tànk yi nga xam juróom-benn fukk xaj na ci. Cheikh ne kii naa ko dimbale ah ma ne ko oto si ma ñëw ne ko DG fekk benn arbre nawet bi man ko DG dama fu may dem damay dox. waay waay waay ba di la naa fa ma ko waxee ak fa ma koy mayee benn la kon kooku. Ah. Ah, kooku baax kooku baax kat la moo baax moo baax kooku baax kat la. kii décanté du la escanté. léegi moom laay fréquenté kooko sécanté. <laughs> yaa ngi jaawaat. sécanté ñun tam dinañ la fréquenté dox dox nañ baraat. Ablaye Dieng yéen Ablaye Ablaye sama oto ba tamit maa ngi doxaat nag. baax na ba ma Cheikh joxoon yàqu na. Feeling Dakar la lépp di amee fii. <laughs> mbër la de mbër de. ay naay kala Dakar Feeling Dakar la lépp di mel Feeling bi fi la nekk. way way Ablaye euh, Dieng borom sëgg jot na sama oto bi Ablaye maa ngi doxati de Cees ba ma seex joxoon yàqu na kada <laughs> oh, man mënu ma sëriñ kii quoi ay ci ñu lay demee saa su nekk seen euh, bi la émission yaa ngi ci biir dalal koo xamante ni nag franchement ngeen jéggal ma ci rey waaye daam seen la nit mënta mu ci àdduna daam lan mooy lan mooy sa relation ak artistes yi jàmm ak salaam dégg naa bari nga coo amal problème nag. déedéet la amoon problème Pape Coppet la amoon problème te problème ba la sama mbokk la yal nañu yàlla gën a jubóole Ami Collé ba leen jaxase ñu fi mu ne nii jubóo nañu ñu kenn yàq. ay ci ni lay demee saa su nekk rek seen uh, bi li émission yaa ngi ci biir ànd ci ak ki nga xamante ni moom mooy Dame Sène Dame comme ni ma la laajee léegi nii nga ne uh, sa frère boobu noonu. Ah, Papa Ndiaye moo la tooñoon foog ni yaa ko tooñ waaw mu tooñ ma foog ne man maa ko tooñ ndekete moom moo ma tooñ <laughs> léegi nag baal naa ko. waa léegi lan la la tooñee. waaw xam nga rek affaire yooyu bëgguma cee dellu si waat xam nga le passé c'est le passé le présent c'est le présent le futur. <laughs> kon aujourd'hui tu es au futur fermeture c'est le futur fermez les guillemets. yeneen artistes lan seen relation. waaw jàmm ak ni ma ko sekkee Pape rek waaw. jàmm ak Papa Diouf sama mbokk bi nekk ci moom moo gën a nekk sama mbokk xanaa moom. ñoo bokk a toj àdduna man ak moom def ay affaire mu jolli mbee jox ma ma sànni ko nekk seen diggante yéen ñaax genre ñu ngeen def benn duo boo xam dañ loolu moom bu amee àdduna bu tas la. kan moo ko war a def. te buñ ko waxee naa la xam buñ ko waxee seytaane yi ñëwaat de. <laughs> balaa Pape di ma tooñaat <laughs> non <laughs> loolu day amoon incha allah buñ raam buñ nekk amoon nekkoon ay paa yu am quatre-vingt-dix ans ñoo naan ñoom di raam sax Pape naan daam nga ne la ma day nekk. <laughs> loolu moom day nekk moom. la Sénégal yi bëgg àdduna ko bëgg. yow tey jii en tant que euh, waykat kan nga jàpp ne moo dàqa way ci réew mi. bu dee way la. way. way moom Youssou Ndour ko fi dàq. mooy seen maam. àdduna xaw ma seen maam xaw seen papa xaw ma seen lan. ma Youssou Ndour moom moo dàqa way ci àdduna bi. kii di Pape Diouf ak Wally ku ci dàqa way. ñoom ñaar ñëpp mën a way. ku ci dàqa way. ñoom ñaar ñëpp mën a way. lan <laughs> da ngaa ragal wax ko fa dàq waay wax <laughs> waaw mais am na ku ci dàq boo xam ne bu ne der nga xam ne kii mooy waa way li way bi pëlee dugal na fi mille bii te tey Messi la ñuy wax loolu ça veut Pelé dugal na fi mille bi te tey Messi la ñuy wax ñoom ñëpp mën a woy. <laughs> kon baax nangu taasukat yi ku ci dàq taasu. kan nga fi jël ku dul man. laa <laughs> ilaaha illallaah. déggu ma naan taasukat yi maay seen kàppo fuñ ma seen simi seen chapeau askan wi man la ñu àppoo fan si man maa leen tippoo ku ci sedd man ngay sàngoo ku ci weex man ngay diwoo. xale yi maay seen dikkoo ndax lu ma def mu neex kenn du bëgg mu jeex du ma xuloo du ma xeex ku weddi laaj mbay peex du ma sangu génn bi weex. yaa rime lii yëpp bay ku wax noppil ku doon waaj a wax noppil ku dem bay wax ba seen daamu taxaw di nga ni pat si noo ma doon la mat ay su ma doon def tat sama jabar du tey gi natt ko fay taasuma la fat kuy wax noppil naan ci ndaale naan bu bëggee fanaan yow daam seen yaay mbappe dangaa fa teg te mën a nappe yaay mbappe dégg naa mbappe mos naa doon rescapé ni ngi may xoolee ni saa yu ma xëyee naan café samay soppi waaye duñ ma seen di ma zappe Now I'm saying, God, what yaa ngi gaañ. yaa ngi gaañ. wuy mu ngay lakk. lii moom kenn mënu ñu dégg dara. gaañ bi moom nangu na <laughs> def c'est-à-dire uh-huh. la. aar moo laaj aar moo laaj pànk. su ko defee kenn du nangu ne sa moral. doo toog tele naa sama morom moomu. moo mën daal sangam. Mm-hmm. mais gars yi xam nañ maa ngi gën a ah ñoom dafuñ. xam nañ ni capitaine bi yow la. brassard bi yaa koy takk. non du ma takk brassard projet tibia bi sa lay takk. ah boo takkee brassard bi dafay fa nekk mais projet tibia kenn du la mën a dàcc. mais gars yi xam nañ loolu yëpp ñoom ñoom ñoo ko a xam laaj leen. a a ngi nii trop. maa ngi leen gën a ay léegi. ñoom nee nañ ñoom. mais leen a ay ñoom nee nañ ñoom. très bien d' accord naa. ay li nga tax ngeen neex ma. kon dañu ne yow nii déggoo. dañ ne daam yaa gën a aay yaa ñu gën a aay. Togaay. Fagaay Mbaye. non nga ni des ba ngay nga ni kan ah ku des xaarim taala loo am moo gën de Vienna Bongo Vienna Bongo ku gën a aay Vienna Bongo la wala day taasu lépp lay def ah am bongo am men ah, Fadel Mbaye Louga ah Louga sax nangu nañu ah tas ah gars kontaan naa nag seen nangu gi ngeen nangu yéen da ngeen baax yal na yàlla fay leen seen xol ci ni ngeen ma nangulee yal na yàlla defal leen jàmm ba lépp lu leen dugg rek ngeen gën ci jàmm yéen ute ngeen ak rap yi xeex pour ci ak baykat yi di fu la ñu dugg fa am ngeen am jàmm xaasukat ngeen am yéen a ngi toj dëkk bi yéen a xam kon waykat dañu xuloo seen biir di xeex di jamante waykat yi xam ñooy agressé dëkk dëkk waa dëkk bi am na woykat yoo xam kon kenn déggatu la ñoom ñooy agré sol ay kàggu di agressé léegi maa la wax li am na mbër yoo xam mënut nañu am combat ñooy agressé yoo xam moom commencé guñu agressé mais ñi nga lañ set nit ñi poos yeeg këf saag yi taasukat nga xam kenn déggatu la ñooy def loolu yaa ngi ban taasukat bu ñu dégg ah! moo la yàq nii du genn kenn yàqu la ci yàq waa yàq maanaam lam set la dindi sa poche daf la addu kalpe non duñ def bagage boobu duñ loolu ñoom daal mën nañu lenn. Mhm. taskati bi moom dañoo bëri tiitër. mën nañu taskati booy tiitër xanaa tiitër da nga gis sa bopp yow. waaw moo tax ma loolu ko pour tiitëru di doser ko ñi ne foog nii. di def comme nan. waaw di tiitaru sant fii tiitaru melestiku def ay affaire. ah màcc say tuñ. màcc loolu de melestiku bokkul ak màcc tuñ nii <laughs> yooyu. bu dee ñaawal ñeneen ñi xam nga. kay baal boo leen jëppoo dal baal baal ñi ngeen def baax na. <laughs> d'accord daam ñu fekk la fi nga xamante ne moom mooy studio. Euh, Ilon Ilon Ilon studio Ilon. Apilon Apilon. Pavillon Ilon. ay Allé Ndalon. ay ca kon lon ñu fekk la ci <laughs> studio Ilon mu mel dafa am loo xam da nga koy préparé ci Saint-Valentin bi. waa xam nga bu la sa Valentin naxee tey ma diggalal looy def da xëy demain matin tin yàq sa tin def grève de faim takk sa soutien ak sa maillot de nga woo sa chien muy sa Valentin man la cousin Sylvain bi àndoon ak Bayanzin Martin Augustin Justin ak Alain yëg ci engin sauf suñu pantalon leente yoonu ñuy rien ma romb suñu benn copain mu yor el lapin di leen jox pain man ko foog ñu ne ba Poussin jënd ay pitaxu mondain dafa am benn marin bu jàpp benn rek 15 jours Saint Valentin ñu naan ko yooyu mun naa pourtant ñu ñaan ko on maintient mu naan non des maux de rein c'est le destin <laughs> li ñuy waaj fii léegi mu génn amul wax làmmiñ baaxul nañ ne tekk rek def ndànk. li ngay waaj fii yow yaa koy waajal sa bopp wala dafa am koo koy waajal. ak keneen ci Saint-Valentin bi la. li ngeen ci gis seen bopp. ci mbirum Saint-Valentin la. pat damay bañ <laughs> ngay bañ a catu. waxuma la Saint-Valentin ci àdduna. <laughs> ci àdduna. moom mosul moom. Mhm. day ànd ak lépp. kon singal la. singal la jëngal la lépp la xam nga jëngal dafa rëy. mun nga ci dugal juróomi nit ndax jëngal mooy pantalon yi ngand yooyu morceau bi dafa rëy mais en tant que artiste ak moroom artiste am tey bu ñu déplacé woo jëlee la ba Thiès indi la Ndakaaru pour nga participer ci seeni morceau mhm. nañ lay fay du leen dikkee dara gratuit mhm. mhm. li nga xam ni moom yëg yëg-yëg mu am ba ci morceau ba wowal ma man loolu mooy sama payoor ci morceau kon da nga koy maye non loolu du dara c'est comme ay jàmbur la may waxuma la ak suñu nawle léegi nag jàmburoo ñu dem xumbala ko tray fa suñu bopp ñàkk tooy xeeb ni ni bi di léegi mhm. suñu naw la nag war na mën a génne dara ñu ñëw jàpp ci ba mu baax mhm. ndax maanaam fa ñu fayantee du loolu mhm. fa ñuy fayantee du loolu man de teguma kenn sart bu ma kenn soxla it naan est-ce que bu ma ko woowee dinañ ñëw ak nangam ak sàngam ki ma ñëwul fii benn yoon la ma woowu ñaarul de te teewal naa ko ci kàttanu yàlla te xam naa nit la. koo xam ne jar na ñu ñëwal ko. bu dul dara ci la bokk. te mi ngi ñëw ak ay bagages ci boppam. ku yóbbu nag boo yoree diis wàññi ko pour mën a daw. ndax nga xam ooyo fa neex naaw jot. te nee na ku la rëkk la bu la diggee tëj pique boo yóbbu gëm ko de. <laughs> dëgg neexul kon ki mu ñëwal fii. ñu ngi xaar këf ki. comme nee na moom du wax yëf ya uh-huh. kon ña ngay xaar këf ka rek këf ka bés bu génnee yàlla ci suñu borom defe xéewul gu bare bare bare te yàlla ubbil ko ci buntu wërsëg bu nekk nag te ngeen bokk ko te ñëpp ñu bokk ko ci barke Yonent bi daam lan mooy say projet yàq ko xam lu may naan di ngeen ko tee kumpa li muy naan di kumpa la dinañ ci naan de naan leen di ngeen <laughs> yi dinañ ci naan supporter yi mhm. ndax xam nga Sénégal moom boo xam ne fa nga jëm doo àgg. Mm. maintenant ñu ngi sant yàlla ñu ngi ci ay projets yu am solo. léegi nag li problème bi mooy lu jot dañ ko génne ci anam ba mu war a génne ci at ba mu war a génne ci weer ba mu war a génne semaine ba mu war a génne. Mm-hmm. yéen toog leen rek di xaar dootuma wax sama lenn. Mm-hmm. sama album ba ma enregistré woon. toog tere naa léegi album bi génn ba léegi génn <laughs> dootuma wax sama lenn. yàlla daa mën a seetaan. <laughs> dafa war a régler mbiri day seetaan. xam na fàtte incha allah. de incha allah da nga ko wax yàlla moo mën a seetaan <laughs> ko day seetaan sàcc mu mu ko jaak yëpp yóbbu mu bàyyi ko mu teg sa li nga war a yàlla seetaan ñu sàcc ko <laughs> day seetaan de ku yóbbu na xool ku fi nekk naan yàlla yàlla yàlla <laughs> yàlla léeg-léeg yéegi-yéegi nii hmm? jàpp bàyyi leen foofu yéen ngeen di kërti kërti tey seetaan de dama la koy wax. est-ce que da nga ànd ak est-ce que tu tamit say say mbir mooy bañuy wax. moom la nag moo tax may noppi léegi kay moom boo ma waxee rek man la bientôt. bientôt soo ko mën a exister rek bientôt. kon projet yi bientôt ma tegale ci daam ñu daal di jublu Saint-Valentin ñu nekk ci mois boo xamante ni mois de mbëggeel que bu ñu nee mois de euh, euh, janvier février rek ñëpp xam ni euh, moment bii ne moment de mbëggeel la waaye ñu jublu le 14 février incha allah ñaata cadeau Saint-Valentin ngay joxe. yow xanaa xam nga ni yow lundi ci lañ fomp lundi ndax mardi da ngay maar. mercredi boo meree doo am crédit. jeudi ci région bi commencé. vendredi ma ànd ak vendredi. samedi ma indi am di. dimanche ma jël sama revanche. kon neex na. janvier. ñëw. janvier. janvier ñoo jubawul. février day bëri ñu feebar. Eh? waaw. <laughs> mars. gisoo élèves yi dañuy mars rek. nga Thiès. maa ngi nii toog. waaw ba benn. mooy mois d'avril nga yóbbu Thiès. waaw léegi yow mi <laughs> ma nga Thiès. ak mais tout le monde a ses deux mai. juin chaque seen juin. <laughs> juillet ñu génn suñu juillet. août ñëpp dem août. waaye mois d'août moom est-ce que moom warul xool boppam. ut ak nu muy mete boo ci banqué tey nga dee boo denc ba ut tey nga dee. ut lu ci topp septembre. septembre. yaa ngi génne sabago yi. octobre. day bëri koom-koom. novembre. novembre nag tànn ak membre de bureau. Hmm, membre de bureau yi à de novembre. novembre lañ koy tànn décembre. ñi dee seen chambre day bëri demal France membre yooyu ñëpp wadd nañu. <laughs> tey Saint-Valentin. <laughs> weer wu méttee ngi ñëw nag Saint-Valentin. ñaata kado ngay jënd kado ba nga daw. man li may rey Saint-Valentin mooy ku génn rouge noir. déedéet léegi xeewi na. lu ñu def léegi. yii yi ñu ngi def noir kese ñu ngi ci bool ba bool nañ ci blanc léegi bool nañ ci sax rose léegi daal couleur yi dañ ko assaisonné léegi rouge noir bi rarement nga koy gis léegi. man Saint-Valentin yaram na sa laay def aw ma yére wala ma sol njaxas bu mag. def ko njaxasu Saint-Valentin. déedéet njaxas moom yàgg na ci. njaxas suufu kànja rek boole ay couleur bu ne xam ne du doon rouge noir doon dara. boo ci xool rek gis ko ci. di gis ku ëppal. sol veste bu mag. ronk sëñ bu day ni studio Ilon bi. <laughs> ñu xam ay dàll yu rouge ak lu ne ngay gis ma ma bañ say nga ci joxe wax googu de. man am naa droit ci ñaari cadeau de. parce que ñaari galon ñaari femme moo tax <laughs> maanaam daam jërëjëf tàggatu ak ñu lay seetaan ma sonn. alhamdulilah fête yi bëri. 31 décembre jóge pétale sonal la. tëf tëf nga jóge fa Saint-Valentin. ñu ne waat nga ci beneen boobu rey. ñu ne waat nii tabaski ñëw nga reyum xar. weeru koor gaa ngi ñëw. tey ñu nga dee tàndarma bu yaay. parce que da lay def ñun ay commandes yëpp moo xam pour nit ñi la bu fekk ñeeri ñu jàpp suñu bopp nekk nekk leneen ba feebar ba sonn waay sonn lu ñu dugg feet kenn rawuñ te kenn santuñu ko feet bu ñu ni moom ko ci ya ngeen ni Mardi Gras ñu ñëw lan gras Mardi Gras mercredi du gros day ci yam Mardi Gras mercredi du gros jaam jërëjëf daam tàggool <laughs> maa ngi santaat bu baax sama sëriñ sëriñ Saliou Touré di ko ñaanal mu yàgg fi loolu te sant sama yaay di ko ñaanal mu yàgg fi loolu te ah alhamdulilah. siyaar nañ leen nag yéen waa cees bu baax. di bëggee Habib Kane. billaay wal yow kan tukkuleur kenn du yow yaa Ablaye Dieye borom si gi jot na Cheikh Kanté maa ngi lay gërëm dina sant. docteur Ndiaye docteur du yokk toor day wàññi mor xaw ko seeta mun na soor ko koy docteur Ndiaye Mohamed Ndiaye Ndiaye jaata Ndiaye Ndiaye ma ca Paris bitig bu amul Ndiaye dañ koy tëj Pape Doumbouya borom terrain yi kenn du yow xam nga Thiès am kër waaye Habib Kane terrain ba ma may. Habib Kane mun naa ca takk <laughs> waaw ah, ah. borom terrain il yi ñu jox suñu wàll ñun tam ci terrain yi. bu kenn tontoo ngeen ñëw mooy bu leen ci kër kooku. léegi nag mot de la nekk naa kenn mës ko gis Thiès moom aw seen fay. fata dig nañ ma lu nekk nag ma taamu bulet bulet la. bulet da nga fi lekk ak akara. mais ki ma ñëwal fii defal nag proposé na ay lekk yu baax. waaw kooku noobu la kooku noobu la kooku yooyu lay def. lakara. ma ne mon esprit c'est de lakara kooku lu neex la ñuy làkk maa bi boo ci nekkee làkk lu la neex pour ñu tàggatoo dof kenn ñëw ne jël ma kado maanaam ki dafa dof. bon nuyu dof. waaw bon muy nuyu nag sama mbokk taasukat yëpp nag di xaar nag seen tontu ah pour ñëpp dégg. waaye man kan waay à man man kan ban ban booy moo fi aayaat. nag booy dañ tane rek quoi. <laughs> du tànn kenn. <laughs> dañ du tànn kenn ku ko mere lay wàññi. non booy dañ tane li ñuy wax kenn xamu ko. comme lan booy léegi suñu la dina sàng booy booy. est-ce que nekkul saaga yi ñoo ëpp li ñuy taasu. xaar dinaa ci mus a jàpp nit. dóor la dóor yoo xam. ginnaaw yaa président da lay lay benn bureau jël ñu def leen ay ay ay ñuy bi. parce que booy it ay raxas ngeen gën a mën ay fomp lënd ah. man boo leen def benn météo ah. métier bi ngeen def nii mu leen ko dama leen def beneen métier. ñu bàyyi koog yow de waaw ah. maa war a def ñu maa ngi nuyu armée di leen sant di leen gërëm. Mm. wax dëgg yàlla taxawal ngeen ñu fu nekk. Mm-hmm. bu ñuy nelaw yéen. yéen a ngi def loo xam ne maanaam tey jii ñun mënuñu ko suñu bopp. Mm-hmm. yéen day gàcce ngalaam rek laa leen waxal armée nationale. Ah, ah man de maa ngi delloo njukkal bu baax ndax lii la may nelaw nelaw yu metti Casamance di toj. ñoo fa ne dara tatatatata ñii di dee ñii di ñàkk seen i tànk ñii seen loxo am na ñoo xam ne ay bëñ sax amatuñ ko. Mm-hmm. bu nit ñi julli ngeen taxaw di garder kon nag yàlla yàlla fay leen yàlla seen jàmm yàlla national muy bépp koor nag mhm. yàlla na yàlla defal jàmm ndax seen njaboot yi sonn nañu gis ñu leen seen jabar yi sax duñu gis lu bari mhm. kon nag yéen daal am nañ jàmm armée nationale. yal na ñëpp am jàmm comme ni ko daam seen waxee rek jàmm gi yal nañu téq téqaale ñëpp ci barki Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla sàmm ñu sàmmal ñu suñu njaboot ndax it suñu borom ay sàmm la nag armée bi moom kenn mënu leen a fay ci àdduna kon nag dañ leen di bàyyeeg suñu borom moom mi fay rek yàlla fayal leen boppam waaye damay daal di sant daal di gërëm bu baax a baax a baax sama cameraman bi nga xam ne moom la àndaloon di Assane Diop waaye tamit di ga di jaajëfal bu baax suñu chargé de production eh, Silman waaye nag damay dem ba Thiès daal di fa ki nga xam ne moom mooy Bella Sène sama sœur d'amour boobu duma toog mukk daam seen te xalaatuma belaa seen du ma toog ak mukk daam seen te xalaatuma Ami Diagne ku defe ne daa neex man Thiès dama fee dama faa bari ay yëf dama faa bari ay yëf ay ñoom nu ma njaay li bu tàngee day naqari ah <laughs> ku ma ñee ci li may naan yaa ngi baax a baax a baax kii laa mënta muñ ay ca wasalaam noonu lay demee saa su nekk rek au revoir je vous adore Vito Mbengue <laughs> Vito Vito Vito l'international <laughs>